dal leen ak a jàmm ami site internet net bi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek Ousmane Sonko mi nga xamante ne rek jamono ji nag mu ngi xeex ci ñaari mbir yoo xamante ne rek dafa ñeel radiation bi nga xamante ne rek daal nañ koy dàq ngir mu bañ a bokk nag ci élection présidentielle yi ñu dën ma ci atum 2024 bu ñu sukkandikoo nag ci seen avocat moom nag la mu daal di xam ne ay avocat Ousmane Sonko daal dinañ déposé li nga xamante ne nag moom mooy ab recours niki tey jii nag ginnaaw rek bi ñu sàkkoo nag ci ki nga xamante ne moom mooy cour bu suprême ak beneen bi nga xamante ne rek moom mooy tribunal bu Ziguinchor ginnaaw conseil nag yoo xamante ne rek def nañ ko mooy conseil bu leader bu Pastef bi nag saisir nañ ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy chambre administrative bi nga xamante ne rek moom mooy yor juridiction bi waaye nag mbir mu mel nag dañ leen ko daal di gàntal ginnaaw ba direction générale des élections nag joxe ab mandataire boo xamante ne rek ci seen client rawal ñeel parrainage nag bi ci topp nag moom bi nga xamante ne rek def nañ ko Ousmane Sonko seppi ko ni weñ rek ngir mu bañ a bokk ci élection présidentielle yu ñu dënmal ba tey rek bu ñu sukkandikoo nag ci bi nga xamante ne rek moom mooy saytu élection yi fii ci eh, Sénégal gàntal gi nga xamante ne rek eh, gàntal na ko nag ab formulaire maanaam daal gàntal na ko nag parrainage kii di Ousmane Sonko ba tey rek bu ñu sukkandikoo nag ci yéen kaay bii di source a moom nag la mu daal di xam ne rek mooy notification bi nga xamante ne rek moom lañu joxe nag dafa dàq leader bu Pastef patriote ngir mu bañ a bokk nag ci élection présidentielle yu ñu dem mbir mu mel nag ah, programme woon nañ ko ni ki 20 septembre bi ñu génn waaye nag ni ki tey ni ki démb ci altine ji nag lañ daal di fësal mbir mu mel ba tey rek journal bi nag mu ñuy xamal ne nag am na ay documents yoo xamante ne rek avocat Ousmane Sonko yi nag daal di nañ koy yor ba noppi rek ña ngay saisir bu baax nag ni ki ngir nag naqarlu bu baax mbir mu nu mel ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci boobu lee source bi joxe information bi nag tribunal bu Ziguinchor jamono ji nag tànn na ki nga xamante ne nag